bisimilah asalaamaaleykum euh, mbokk yi ñoo ngi nuyu ñëpp di leen euh, ziyaara di leen jaajëfal di am euh, mbégte mu rëy di feggoo ak yéen saa su nekk ci seen jotaayu mboor ak xayte dañ ko daan waxee rek mboor buñ ko déggee day doon histoire ci faranse xayte it buñ ko déggee muy doon civilisation tey nag ñu ñëw indi leen wëpp ngir waxtaanee maanaam loo xam ne day jëm ci diine ak mbati lépp nag dina tënku ci tabaski ak li nga xam ci aju ñoom ci gan muy alaaji jibi sëy moom mi nga xam ne it maanaam daf di ku ràññeeku lool ci liggéey wi nga xam ne mu ngi koy liggéey jëm nag ci suqali làkk wolof nekk it euh, bindukat euh, bind nag lu tolloog ñetti téere jëm ci jàngal sa diine ci làkk wolof jëme ci cheikh ahmadou bamba xaadim rasul jaar jaar ak jàngale muy lu am solo jëm ci mbooram ak itam ci ay wax yoo xam ne ay kàddu yoo xam ne jot na koo wax mu doon loo xam ne dina jàngal nit ki jëm ci wàllu nekkin ak dundin euh, tekki it téeréeb Cheikh Ahmadou Bamba boobu noonu ñu naan Masaalikul Jinaan ci wolof ba nga xam ne tey képp koo xam ne rek sax xam soriwul lool lool ci làkku arab nga dégg wolof di ko mën a jëriñoo ngir mën a rek xam li nga xam ne moo nekk ci biir téere boobu ñu naan Masaalikul Jinaan mu it koo xam ne day yëngu ci wàllum mool ay téere ba taxawal benn lijjantiku boo xam ne mu ngi ko mu ngi ko dippee IRISCOM mu ci defit yu solo jëm ci wàllum imprimerie ak sérigraphie moom it ba léegi taxawal na daara internat yoo xam ne dañ ciy tàggat ay ay ndaw di leen jàngal seen diine di leen xamal seen bopp di leen xamal it àdduna jëm ci wàllum yar ak teggin noonu daal lañuy ñuy eh, tënkee rek maanaam kaajar gi nga xam ne mu ngi jëm ci suñu gan yi nga xam ne moom la ñu dalal tey ci jotaayu mboor ak xayte di fàttali ne rek tey li ñuy waxtaanee ak moom day doon diine wala mbatit tey ndax nag ñu ngi seetlu saa su nekk euh, ay mbir yoo xam ne dafay xaw am ci biir jëm ci ay lënt-lënt jëm ay xew yoo xam ne nag dañ koy taamoo di gis ci ci ci diine gi waaye it mu am liñ ci yokk war a am yoo xam ne dañ ko cee xaw a génne li ko waral nag day xaw a laal tuuti wàllum aada ak cosaan ñu koy seetlu ci lu mel ne tamxarit di ko seetlu ci lu mel ne korité di ko seedut ci lu mel ne tabaski waral nag tey ñu dalal ko ngir waxtaan ak moom nag ci tabaski ak li nga xam ne moo ci aju alaaj jibi si nuyu bu dee it maanaam aajar gi xaw na xaw na wàññeeku boo ci mënee yokk rek eh, li nga xam ne tey xëy na moom lañuy ñu fàtte nga yokk si ko defee ñu mën a xuus bu baax a baax ci ci waxtaan wi incha allah waaw jërëjëf sëñ Meissa di siyaare itam mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci saabal point com wala point net di sant bu baax nag ci jotaay bi nga xam ne ci nga ñu woo te it mu dëppook jamono ndax ku ne xam ne fi jamono toll moom xel mm-hmm. yëpp ngi ci tabaski ji ñu ñaan suñu mm-hmm. borom àggale ñu ci ag jàmm te lépp luñ ci jàmm rek suñu borom nanguñu ko di sant bu baax su ko defee nag aajar gi moom mën nañ ne mat na sëkk te it ndongo lu xeebu loolu daal mooy jéem rek mhm. te jéem gi it ñu ngi ciy sant suñu borom ndax lépp dëppoo naak loo xam ne ci mbir yi diine la jëm ci mbir yi mbatit la jëm ci mbir yi mhm. fonk sa bopp la jëm te loolu dafa war ku ne ndax xam sa bopp moom léeg sax dañuy wax ne moo jiitu ci jaam yàlla mhm. euh, xadis boobu nga xam ne saa moo ko wax ne bokk na ci ngëm yàlla mooy bëgg bëgg sa réew mm-hmm. te boo bëggee sa réew nag mbooleem li yàlla suñu borom baaxee sa réew muy ci lu koy mandargaal la bokk ci jëram mm-hmm. la loolu da koy fonk loolu nga koy jox cër fonk li koy fonk nag jox ko cër daanaka lépp looy tabax mm-hmm. bu tegee ca loola dafay daal di bëri dëgër këcc dëgg la waaw moo tax ku koy desal ginnaaw rek da ngaa xamul luy mbatiis waaye réew yi dem yëpp mën naa ne ci seen mbatit lañ sukkandiku ba fu ñu àgg mm-hmm. loolu leen fa àggale te ñun suñu mbatit dafa am lu ci dooleeku lu am am solo loo xam ne mën nañ ne moo ñu seggan lépp lu ci mat a bàyyi ak lépp lu ci mat a dindi te mooy diine ngën ji diine rek muy lislaam mm-hmm. moo tax lislaam bi mbooleem suñu mbatit daf ko sànni ci àll ba déedéet am na loo xam ne mm-hmm. diine daf koo samp dëggal ko nekk loo xam ne képp kuy jullit daf laa war te loolu mbatit sampoon ko Hmm. nga xam ne bu diine ñëwee méngoog loola da ngay daal di wéyal rek waaye am na ci sa biir batit loo xam ne yàlla mën na koo bañ a gërëm ndax xëy na hmm. da ko sampoon tey lislaam mën na leen a bañ na gañe bu leen gañe wut nag su boobaa mën nañu samp loo xam ne kat ñu bari bari mën nañ cee wéy te saa sa la indil ko loola fuuf hmm. su boobaa nag ba ci diine yooyu da ngay daal di tàggoo moo ñu koy faral di waxee nga xam ñu bari bari moom lañu àbb ci arab rek arab li ñuy woowee aada mooy loo xam ne dafa baaxoo am lépp baaxoo am nag mën naa am loo xam ne njariñ la mën am loo xam du njariñ mm-hmm. waaw su boobaa nag baat bi gën a méngoo moom ci wolof mooy mbatit lii njariñ ca la nga xam ne sa mbatit la lislaam mm-hmm. day lay ñëw dëgëral la ko sampal la ko moo tax lu mm-hmm. mel ni dëggu lu mel ni ngor lu mel ni njub loolu ay jikko la yoo xam ne foo dem ci àddina ñëpp ko rafetlu ñëpp ko naw loolu nag lislaam du ñëw mukk aayal ko te yow sa mbatit rek war na laa mën a jombaloo lu bari dëgg la waaw moo tax di nga gis koo xam ne day doon yéeféer démb ñëw tey tuub dugg ci lislaam ñu ne ko fen baaxul mu ne mosuma koo def mhm. kon kay li desoon lenn képp la mooy diine rek waaye am na jikko yoo xam ne mbatiitam dimbali woon na ko ci loolu te loolu suñuy maam wax dëgg yàlla dañ cee góorgóorloon lool ba am na lu baree bari luñ lu woon donte lislaam yi seegu fi woon mhm. moo tax nag gëstu suñu mboor Hmm. yu ama am solo la parce que léeg-léeg ki lay jàngal sa mboor mën na cee lax loo xam ne dalay xeebloo sa bopp. waaye boo ko gëstulee sa bopp nag ba xam ko di nga xam hmm. yaay kan. waaw su ko defee nag la maam ba defoon la ca baax lépp nga daal di ciy sukkandiku yaa defar sa tey. la nga xam ne hmm. xëy na ay njuumte la woon ba ca maam nekkee juróon na ko loo xam ne xëy na nekkul lu ñu rafetlu nekkul lu yàlla gërëm. su boobaa nga daal di bàyyi ko ca loola. loolu dañuy gën a dimbali nga mën a jëm kanam. waaw léew sa boor moom keneen nga ciy déglu te moom mi nga xam ne moom nga ciy déglu leneen ko tax a mhm. su boobaa nag fa fa jóg rek fa ngay teeree ji moo tax boo seetloo mhm. ñu gëstu seen seen seen taar seen seen boor gëstu seen jaar-jaar yi silsila mhm. nga xam ne da ngay jàpp diw maamam diw maamam diw maamam diw ñuy bokk di moytu la nekkoon ba faatu xam nga dañ ne ku ndëmin rey sa maam foo séenee du ñuul daw dëgg waaw waaye day fekk nga xam ne ndëmin rayoon sa maam subaan nag ñuul ñuul foo ko fekk mën koo daw mooy maanaam fi maam jaar ba jëlee fa gaañu gaañu yow da nga mhm. ciy boobu ëllëgee doo fa jaar moo tax li duppee jataay bi dafay mhm. am solo muy xayte ndax daanaka lépp looy tabax sukkandiku ci sa mboor sukkandiku ci sa euh, xayte li muy mhm. mooy ak suqaliku rek suqaliku goo xam ne tawféex ji nga ciy am mooy diine ji ci njàmbaasu day doon suqaliku àddina ak àllaaxira dafa bëri ñoo xam ne seeni mboolaay dañoo tabax seenu suqaliku ci àddina yi kese hmm. léegi bu àddina jeexee suqaliku googu li muy jur te àddina day jeex di bu dee hmm. taax yi fii lañ koy bàyyi hmm. bu dee oto yu rafet yi fii lañ koy bàyyi kër yu rafet yi fii lañ koy bàyyi te bu dee àddina am na ci ñoo xam ne seen mboolaay foofu lañ ko tabax mooy suqaliku koom képp kepp kepp képp te koom moom ki am dégginu diine da ci am beneen pas-pas bu bokkul ak ki nga xam ne ab yéeféer la waaw moom koom da koy def jumtukaay ngir mhm. ute ko ngërëmal boromam kii nag da koy def jumtukaay ngir tiitaroo ko am naa lii def naa lii jaar naa lii mhm. àgg naa bu dee jullit bi nag amul pas-pas boobu mhm. waaw moo tax bëri na ñoo xam ne ñu ngi leen di déglu ci mbiri koom-koom di leen déglu ci mbiri tabax nit fekk ne ñoom ñoo la waroon a déglu yow dangaa yor loo xam ne amuñu ko ñoom benn bët lañ yor ñaari bët nga yor benn bët bi yor mooy àdduna suqali ko rek waaye bu dee yow yow am nga diine am nga lislaam am na lu mu la jàngal nga sukkandiku mm-hmm. ci sa mboor sukkandiku ci sa mbatit tabax loo xam ne dafay defar addina defaraale àllaaxira mm-hmm. moo boo seetloo jamono fi mu toll ci yàqute waaw mm-hmm. daanaka yàqute gu ci biti waaye yàqute biir la ci biir la xam nga biti gi moom tey la kër yi gën a taaru tey la yoon yi gën a taaru tey la tabax yi gën a taaru tey la waruwaay yi gën a taaru teel a mhm. jóg gaay gën a yees waaye teel a jamono gën a yàqu wallaay lu xel daa mel ni nangu ko ndax bu dee teel a kër yi gën a taaru mhm. teel a nit ñi gën a xarañ ko mhm. jumtukaay yi ñuy jëfandikoo boo seetloo xarañte gi ni mu ciy feeñee kéemtaan la waaye ñëpp a d'accord ne jamono mu ngi ci guute goo xam ne kéemtaan la buñ dëppul rek dana doy waar loolu nag la yàqu mooy jikko yi jikko nag diine koy defar te diine la ñu baree bari woon ginnaaw na yenn xalaatkat yi ñu jiital ci diine ci ci ci mm-hmm. jamono ñuy xalaatal jamono da am ni dañoo bëgg a seppi loxol diine ci jamono mm-hmm. te su boobaa nag mooy sepp ci loxol suñu borom ni bëggoon jamono doxee mm-hmm. waaw léegi nag ñun ñu war a sukkandiku ci yooyu yëpp tabax ci mboolaay ah warta am benn jafe daa war a jàpp jikko yi nga xam ne moom ragal jikko yi nga xam ne ñooy xatal dund jikko yooyu yëpp diine daf ñu koy aaye te fekk na suñu mbatit nag aaye ñu ko bu yàgg dëgg euh, wax dëgg yàlla euh, sa wëppa yi moom am na solo mm. lool ñu ngi ñaan yàlla defal ñu tawféex ba nga xam ne yaakaar bu ci mbokk yi am ñu mm, kawe njort incha allah macha allah jërëjëf ba ne ko ci ni ko ni ko tënkee moom euh, am na solo te gànjaru na lool macha allah. Mm. te dañ ciy jàng rek ne jamono ak nu munti mer rek ak tey nit ki ci lu munti nekk rek na ci sàkku saa su nekk yiw ndax nag euh, la wax léegi rek diine gi day doon loo xam ne dalay lay bu baax a baax a baax ci ci lëndamaayu jamono ji nga xam ne tey ñu ngi ci te mu nekk loo xam ne yéeme na lool lool lool ba jëmee ñu ci li nga xam ne mën nañ naan yées yàlla nañ ci yàlla musal waaye tey ñu ñëw euh, ngir waxtaanee tabaski. waye lepp rek day doonaat ci li nga xamne moy mooy diine bi ak bàcc bi xam sax ci kanam tuti dinañ gën a jëm manam ci manam jëriñal euh, lak yi nga xamne wala ñu nampu jëm ci xam sa diine xam ci ci ci fanu ñu lañu mujjé waye mujjee waaye dañoo bëgg rek ñëwaat tuti ci walum tabaski nga leeral ñu maanaam tay mbooru tabaski fan la fan la joggé ak tay lan mo tax ñu nan ñu nan ñu nan tabaski. waaw tabaski mom ku gëssu tuti xam nga ne dafa am tarikh mm-hmm. taarix boo xam ne moo ko jur. Mm-hmm. te loolu dafa am solo mu mat a bàyyi xel ñeel képp koo xam ne da ngeen ne jullit laa mm-hmm. yàlla suñ borom dafa wax ci alxuraan ne nangeen tàbbi ci lislaam tàbbi goo xam ne tàbbi gu matale la mm-hmm. tàbbi gu matale nag dafay ànd ak nga xam lislaam mooy lan ndax diine la joo xam ne yàlla suñu borom mbooleem liñ ciy def mbooleem liñ ciy jëfandikoo mbooleem liñ ciy aaye yonent saa sallam daf koo jottali rek hmm. waaye ko jottali loolu mooy suñu borom subhanahu wa taala hmm. yàlla nag bu la bindutoon doo am hmm. yàlla bu la sàkkutoon keneen ku mën a taxaw fee sàkk la amut kon yàllaa ñu bind wàccee ci kaw suuf lii mooy pas-pasu jullit bu la bindutoon kenn mënta wutu yàlla ci bind la ki la bind nag war ngaa xam ne moo la gën a xam sa bopp te moo la gën a bëgg sa bopp kon du la diggal mukk lu lay gaañ hmm. du la aay mukk loo xam ne sa njariñ dëgg-dëgg da caa amul hmm. lii nag bu ko jullit ba xasee ba xam dafay xënte woo xam ana lan la boromam gërëmam ci gërëm ci moom ak lan la boromam gërëmam ci moom moo xam ne njariñam mi ngi ci li ko yàlla digal loram mi ngi ci li ko yàlla tere su ko defee nag mbooru tabaski ko gëstu tuuti te dafa war képp kuy jullit ndax xam-xam ñu sal sax dafa waxoon ne dafa war boo dee jullit di góor dafa war ci yow nga sàkku ji ko boo dee jullit di jigéen dafa war ci yow nga sàkku ji ndax xam li ngay def dafay lay dimbali ci nga gën a am yaqiin amu kóolu ne lii ngay def nii la ko yàlla bëggee ma defee ko mhm. su ko defee tabaski nag dafay loo xam ne mbooram ku ko gëstu ci yoon ci yàlla Ibrahima nga jëm mhm. moo xëy boromam ni ko sa doom mhm. ji nga am na ko faat wax nañ ne ci gént la ko dikkal te xam nga ab yonent géntam moom mhm. daanaka moom ñàkk gént ñoo yem mhm. moo tax boo demee ci alxuraan leer na lool yàllaa ko nettali ci alxuraan bi ñoom saa sara jottali mhm. dafa wóolu doom naa sama borom ne ma naa la rey doom bi tontu ko tontu bu leer na ko bàyyi bëy lii la yàlla digal def yonent Yàlla Ibrahima njëkk mu koy def daf cee soxna si nga xam ne. Mm. xam nga këram yàlla mi xadim nga xalam. suñu borom lépp lu dul moom ci biir xol bu gëstu ci tasawuf daanaka du ko fay dajal. Mm-hmm. te it mbëggeel bu ëpp ci loo ko am rek daanaka ci xol lay dugg. Mm-hmm. mu mel ni yonent amul doom ba làq na juróom-ñetti fukki wax nañ ne. Mm-hmm. xam nga juróom ñetti at ku ci yàlla may doom boo xafee mën ngaa bañ a am sago ci ci léegi kooku ban pas-pas diggante am boromam moo nekkoon ci moom ba hmm. attana faat doom jooju leen ngir jëfee ndigalal boromam kon kooku yàllaa hmm. ko gënal doom ji de waaw fekk am na koo xam ne bu doon moom la moom danañ ne ko ah ndigal li diis na de waaw ndax teewee du ma am ci doom moo tax bu weesoo mboor mi dafa bëri jàngat saa bu ko nit mhm. gëstoo ci lu mu mën a doon. bu mhm. jot na feeñ li ci war a def mooy jàngat rawatina sax mbooru tabaski. Mhm. ñu baree bari dañoo xënte woo jëf ji rek mooy fexe ba am xar ray ko. waaye xar bi dafa lu ko jur. li ko jur nag boo gëstoo mboor mi dafa bari jàngat yoo xam ne mën naa ne ay jataay jataay jataay jataay la ndax borom kër boo xam ne mat na borom kër feeñ na ci. am na borom kër boo xam ne bu ko yàlla digaloon rey doom bu ca diitoog soxnaam soxna sa bañ. Ah, ndax mën na ko bañ a wóolu. Mhm. li nga wax wéru. gis naa li nga ñemee gàllaaj. nga bëgg a mhm. rey doom ji tey. est-ce que du mhm. sa gàllaaj yee ko laaj wala nangam ak nangam tooxi doon a bóot bu ngir nangam ak nangam. waaye yonent yàlla Ibrahima bi ko suñu borom diggalee loola. ba mu ca waxtaanee doom ja daa nangu. mu waxtaan saar soxna sax mu nangu. gis nga nangu googu leen moo leen jural tagg ba yow man xiyam kenn du leen faat. ba faaw te ci ngëneel la nag. ndax bi doom ji nangoo rek nangu googu la yàlla soxla woon hmm. yonent yàlla ibrahima nangu attan na tëral doom ji jëfee ndigal li hmm. boo demee ci wàllu mboor ñu bare bari dañoo wuute ñi dañ ne na ko ñi ne reyu ko hmm. waaye ñi am xam-xam dëgg-dëgg di njoñ baati di njoñ tasu ñoom dañ ne rey na ko fan la ko rey fa yàlla bëggoon mu rey ko <laughs> mooy ci xolam mooy ci xolam la ko rey ndax ba mu attan jël paaka bi dawal rek. dawal daxaar boobu ci xolam boobu la wér ci xolam ne rey na rey na ko jëfee na ndigal li. dëgg yàlla suñu borom wax nañ ne moo gëdd Seydina Jibril. ko bu mu ko rey mukk fexeel ba loo gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw na nga dindi doom bi muy Ismaïl wutale ko xar. moo tax wax nañ ba mu rendee rek xar la rendi waaye Ismaïl a ngi ca wet ga moom. Mhm. kon kay rey na ko mm-hmm. fan la ko rey ci xolam mm-hmm. waaye reyu ko ci biti nag biti gi taxu ko am solo mara yonte bi jàngal ñu lu baree baree bari ne yàlla xoolul suñu jëmm yi maanaam yi ci yéene ji daal yéene ji mooy lépp inamal ahmalu bi niyaati ku ne jàng na ko ñi ngi àtte jëfi ci yéene yi yéene ja mat na mooy la ko yàlla santoon ne ko rey ko rey na ko ci xolam fa la yàlla soxla ko fa rey waaw moo tax bu ñu gëstoo mboor mi rek njàngat li nga xam ne moom lañ war a njëkk a def mooy uti xar rey ko baax na lool mooy sunna si mm-hmm. waaye dafay baax kenn ku nekk nag càmbar xolam xool lan la ci yàlla gërëmul te loolu yàlla ñàkk gërëm ci xolam moo koy mm-hmm. yóbbee naan sàngara moo koy yóbbee tooñ moromam moo koy yóbbee bokkaal yàlla moo koy yóbbee rëy moo koy yóbbee keñaan moo koy yóbbee soxor moo koy yóbbee nangam ak nangam ak nangam parce que jàngoro yooyu yëpp ci xol la rendi ko foofa lu mat a bàyyi xel la. dëgg la dëgg faral di wax ne yonti yàlla Ibrahim benn Ismaïl la amoon. Mhm. waaye am na ñoo xam ne ñu ngi fukki Ismaïl yu ñu war a rendi ci tëgg si. <laughs> Mhm. ak koo xam ne ñeent la. waaye xëy na sax yëgu ko. Ah, parce que képp kuy dox te boo laabeeree yi fekk ko ca. Mhm. boo laambee gisal fekk ko ca. boo laambee boo laambee ah. fekk ko ca kii ñu war rendi bari. wallaay wér su ko defee yooyu yëpp dafay gunge mbooram Tabaski. Mhm. nga xam ne luy def ci jamono la ba faaw te it ñu koy def ci bis yoo xam ne bis yi gën a rafet ci àdduna ca la bokk mooy fukki fan yi jiitu ci weeru Tabaski. ak bis yu màgg la ndax uh, yow ma arafa ca la ne te arafa moom. Uh, mhm. bis bu màgg a màgg la te it juróom-ñeenti fan yu jiitu yooyu lu baax a woor la. waaw waaye bisu fikkee bi nga xam ne mooy tabaski moom daanaka woor ci daa araam yonent bi sallallahu digle ko kenn waru hmm. cee woor bisu korité bisu tabaski léegi ndax mën nga ñu dikkal tuuti ci tabaski bi ñaata ñaata bis la waaw loolu moom ñi gëstu xam nañ ne ñetti fan yi la waaw mooy fukkeel bi fukkeel ak benn fukkeel ak ñaar ak fukkeel ak ñett te mooy ñetti fan yi nga xam ne ñoo dolleeku ci ginnaaw fukkeel bi moo tax dañ ne boo amee xar sax soo ma ci rendee baax na waaye na doon ci yoor yoor waaye nag bis biñ gën a taamu mooy bisu fukkeel bi bisu fukkeel bi bu fukkeel bi rawee mën ko rendi fukkeel beeg benn fukkeeg benn ñaar wala fukkeeg benn ñett daanaka am nga tabaski moo tax mën nga ñetti fan yooyu yëpp bokk mhm. xam naa nag mhm. bismillah xam naa ci wàllum wàllum xar boobu noonu ndax nag bëggoon naa sax ñu ñu ñëw ci tuuti boo ci mënee indil ay ay ndax tey li nga gis yenn saa yi ku ci mel ne ku ci mel ne saasumaan di di kër si kër si ngir am xar mën koo rey. Hmm. Euh, fekk ne kay dëggantaan euh, rey xar euh, nekk loo xam ne xëy na xëy na lu ko lu ko war la. nga gis tey ku ci mel ne benn benn maayeer moom it mu hmm. toog ne woon tey fekk ne moom it rey xar lu ko lu ko war la ndax tey mën nga ñëw dikkal ci loolu maanaam tey ci yan anam lañ mën a waxee ne diw mii de rey xar war na ko. Mm-hmm. waaw macha allah maa ngi nuyu sama sëriñ yooyu ngay tudd nag sëñ Saasu sama mbokk saa wala fi yëpp maa ngi leen di nuyu di mm-hmm. waaw xam nga Tabaski moom mm-hmm. euh, bëri na ci kër kër yi ni man fekk ne wàcc na ko bu yàgg ndax dafa yombul uh-huh. waaw dañoo wax ne képp koo xam ne njëgu xar xar mi euh, yitte woowaat nga ko ngir dund moom Tabaski wàcc na la ci at mi maanaam li ngay jëndee xar mi bu dee yow da koy yitte woowaat ngir dund mm-hmm. ci at mi boo yeb boo xam mm-hmm. ko moom mm-hmm. waaye dafay nekk alal joo xam ne da koy génne jënde comme xar rendi ko ngir yàlla te it du jeexital ci sa la la war moo xam looy joxe bis bu set la wala looy joxe ay bis bu set wala weer wu ne waru cee jeexital ci dara parce ki nga xam ne daa dem lebi ngir mhm. bëgg rek njabootam xolam sedd ci ñoom wala nangam ak nangam baax na lool wax dëgg yàlla sa njaboot seen xol sedd ci yow baax na loolu waaye nag na aw ci yoon yàlla la ko digal yàlla mi la ko digal moo ne la te mbir mi li am solo mooy ni ko yàlla bëggee nga defee ko nit te boo yaree sa njaboot ci diine bu la yàlla nattoo kat xar mi wax dëgg yàlla manoo leen mhm. ak ñoom xam nañ ne mayoo sa bopp mhm. yàlla mi lay may moo la xaj dëgg waaye fi mu ne tabaski daanaka rax nañ ci yu bëree baree bëri yoo xam ne. boo ko mhm. ci dindi woon. ah, mhm. ah day dana am xam ne danañ ci gën a ñàkk sawar sax far. dëgg la ah, day mel ni def ngir yàlla gi ñu bëree bëri dañ cee daal. Mhm. damay faral di xalaat ne. tabaski boo xam ne yow képp a fi ne maanaam tabaski boo xam ne dala fay fekk yow képp a fi ne. amul benn doomu aadama bu la wéttali ci kaw suuf ban xar ngay jënd. ban yëre ngay hmm. jënd ak sax ndax di nga jënd xar ngir yàlla parce que yàllaa ngi fi moom dëgg la waaw loolu dafa am solo lool bàyyi ko xel waaye ñu baree baree ba xar ma ñuy jënd nit ñi leen hmm. wéttalee tax dëgg la yére ya ñuy sol nit ñi leen hmm. wéttalee tax waaye bu doon xam yow képp koy gis xaw a mel ne daal ngistal moo xaw a xaw a ci li nga boo ci yegg yegg nga ca maanaam ngistal dafay yàq jëf waaw xam nga sa bopp yàlla sa borom sa dara umpu ko soo manee hmm. xam nga soo mënul xam nga leneen loo ci ko ngir nit ñi rek loolu nit ñee ko moom te yàlla du bokku jëf hmm. waaw naa defal yàlla amaali ci ngërëmal nit ñi yàlla bàyyi la la nga def hmm. waaw te loolu dafa boo ko mënee jëndal xar bu loo man te xam ne ren ji moo am solo te ren ji sax yàlla nee na la aw ma soxla ci yàpp wi aw ma soxla ci deret ji waaye ragal yàlla ji laa soxla ragal yàlla gi ne du xaalis moo nit mën naa rey xar xar moo xam ne mi ngi ko fàggoo euh, tam daret hmm. wala ñaari tam daret hmm. am koo xam ne xaram daanaka fukki junni wala juróom fukki junni la ko jënde hmm. te gën a tabaski ki nga xam ne wax dëgg yàlla def na alal ju bari ci tabaski fan la ko rawee ci xol bi la Mhm. moo tax waajal xol yi balaa tabaski dafa am solo nekkul ni da ngay ñëw ba tabaski da nga waajal sa xol déedéet da ngay waajal sa xol balaa tabaski noo koy waajalee mooy fexe ba ragal yàlla gi soxla ci tabaski mu nekk ci yow nekk ci yow dëgg la su mhm. boobaa tabaski ñëwee ah, waaw ne dañuy bu ñu rayee xar fa dañ naan tey tànk bii day euh, ku ci mel ni benn beneen njëkk beek moom wala tànk bii day waaw wujju per ko wujju percole bi beeg moom maanaam ndax loolu noonu tey diine la war a war a war a war a la. xam nga loolu ki koy def mën naa ne sax hmm. euh, lu ñu yokk ci mbatit mi la rek. Hmm. waaye daanaka du suñu mbatit dëgg-dëgg ndax mbatit moom. yàq fekk mbatit mu ko yoonal daanaka néew na wala boog mu nekk ñoo xam ne yàlla nattoon na leen ñu nekk xeet wu ñi may yàq ndax boo seetloo wujji peccoor goog day dikkeeg nangam ak nangam rawatina suñu mbokk soxna yi yu ci bëree bëri ñoom ñoo ko ci gàll waaye dëppawul ak diine mhm. diine nangu na nga rey saxar mhm. saraxe ci nga rey saxar maye ci ngir yàlla mhm. waaye ki doon feesal wala ñer ci doon jàppale sañoo leen cee fay ci dara loolu ma bokkul ci tabaski waaw sañ ngaa maye nag waaye maye goo xam dafa mel ni dafa war maanaam li fekk defee ko yow sa tabaski baaxul. dafay wareef daal lañ ko lañ loolu day doy waar lool moom yaa rey saxar yaa ko moom di sañ ngaa maye bu la neexee nga ne kii kat sama rakku jëkkër naa ko ci may nangam kii kat sama goro la naa ko ci may nangam loolu rafet na waaye da nga koy def ngir yàlla waaye duwul loo xam da nga koy yoonal ne tabaski gu jot nii la war a demee hmm, loolu yent bi jàngale wu ko fenn hmm, macha allah saa salaam dane rendi leen bu ngeen rendee leen di salaxe leen ko li ci des déggal leen ci seen njaboot li ci des sax sañ ngeen a maye waaye ñun ñooy ñëw nag sartal ko nag ne maye gi nag nii lay demee kii mooy am ci kii mooy am laa kii mooy am laa mel ni li fekk loolu amul moom tabaski bi moom matagul matagul lu wér waaw loolu nag ñun ñoo ko baaxoo def rek waaye wax dëgg yàlla moom bokk ci sañ ngaa maye nag man sañ naa rey sama xar ne kat sañ may sa wax dëgg yàlla ku baax la yéene naa ko tànk bi daal di koy baax hmm, waaye boo seetloo jigéen ñi ci bare bari yi ñuy def ci xewi ngénte yi Mm-hmm. boo ñëwee ci takk yi moom nga fay fekk loolu lañ bëgg indi ci weeru koor gi liñ ci dolli ci wàllu suukaru koor ak yooyu yëpp nga xam ne dafay dem ba neex ci xol yi waaye boo xalaatee suukaru yi mu bëgg a diis eh, bokk ci <laughs> ci moo tax ñu leen diine saa bu diisee rek ñi la nit ñi la dëgg la waaw waaye yàlla suñu borom lu jàppandal mm-hmm. ci yow mu yërëm la que xam na ne li tax mu diis moo la ko nattoo mm-hmm. waaw loolu neex naa gis loolu loolu neex naa nangu dëggantaan waaw moo tax yooyu ñu ciy def yëpp wax dëgg yàlla moom mbokk hmm. soxna yi moom ñoo ci gën a sawar moom ma tooñ leen tuuti daanaka bokk ci moom léegi ba ci ba ci sañse gi nag jëm ci jëm ci sañse geeg yooyu loolu moom lan la ci maanaam yoon la nit ñi wala dañ ko ci loolu loolu moom hmm. lu ci bokk la moom wax dëgg yàlla dañ ne képp ku ko man hmm. bu mënee sol lu bees lu bees nag ñun liñ ko déggee mooy daa war a nekk luñ xotti tey tey tey nga sol ko tey tey tey waaw moo tax may faral di wax ne ci ki rek la ñuy déggee lu bees noonu léeg-léeg ma yàlla sa euh, may sa sa jollosu bi kat waaw bees na de fekk ne ah. jollosu bi du ne mi ngi soog a génnee ci defar gi ah, la ah bees na hmm. tekk wut ne daa ci defar gi rek nga am ko dëgg la ah ni hmm. daamar mën naa bees te du wut ne da ngaa dem ca defar ga muy soog a génn nga am ko dëgg la lu wér waaw ah, nag yére mën naa bees te fekk ne da nga koo fóot yere mën naa bees fekk ne yaa ngi koy soog a ñawlu dëgg la mu sa am am fu mu toll iya, rek sa koom-koom fu mu toll rek bu ñee àjjuma liñ ci sopp mooy yére bu weex waaye bu dee iit ni ki korité wala tabaski liñ ci sopp mooy yére boo xam ne dafa yees yees gi bu fekkee day soogu jóge ca ña nga xam ne ñooy ñaw baax na boo mhm. ko mënee waaye bu fekkee loo xam it da nga koo yeesal mu jekk lool nga sol ko lool yi yes na ba léegi dëgg tegental dëggantaan macha allah dess ci tollu way ko par gi fu tollu ci yow rek tegental léegi way li am solo moy def ko ngir yalla hmm allah léegi ndax ndax li ñu mën a liggéey ci walum julli gi li jëm ci julli gi naka la ñuy jullee maanaam rakk yeeg kàmbar yeeg ndax di ñu ci mën a ñëwal nga nga teunkal ñuko ko su ko defee ñi nga xam ne xamuñu naka lay démé ñu mën ñu mën xam bu baax waaw waaw loolu de moom defe naa ne néew na koo xam ne mës Juli julli it neng koy defee it mooy boo ba si li ngay def mooy xaar iliman iliman bu yegsee daanaka dañuy daal di julli ndax boo seetloo xutba gi ginnaaw julli gi lay doon julli gi it bu weesoo kàbbaru armal bi juróom benn kàbbar la ci imam di teg moo tax boo ke kàbbaru njëkki day nekk juróom ñaar su ko defee jàng faati ak saar daal di bu koowee siggi ci rukkoo bi daal di sujjoot mm-hmm. sujjootee siggi sujjootaat siggi daal jóg buy jóg dafa am kàbbar bu muy jógaale mm-hmm. ginnaaw kàbbar bu muy jógaale dañuy teg juróomi kàbbar mm-hmm. soogay jàng faatiha ak saar waaw daal di rukkoo siggi sujjoot siggi sujjootaat siggi taaya daal di sëlmal daanaka julli bi loolu la da koy gërëm ah, léegi tey tey maanaam ci julli gi ku ci ne man bu yéexee maanaam topp sàcc yooyu noonu ba xaw a xaw a yéex a ñëw euh, bi daal di daal di kàbbal ba noppi moom euh, ban ban a am ndax day topp ci war a dafa am nu mu nu mu nu ba noppi. waaw moom kay imam moom foo ko fekk foo foo foo ko fekk da ngay ñëw topp ci moom. Mm-hmm. léegi nag topp gi ci ngay xam ne ba xam yow raaka wala raaka rawul. waaw bu fekkee da ngaa ñëw fekk imam di soog a mm-hmm. moom da daal di ñëw wéyal rek. Mm-hmm. nga xam ne ngay daal di rakk boobu mën na laa a raw ndax dañ ne rakk mi ngi lay ci boo ñëwee fekk imaam jàpp ay boobu rukkoo ba ba siggi dafa xam ne rakk la boobu raw na la boo ñëwee fekk imaam rukkoo jàpp euh, tànk yi ci rukkoo bi nga xam ne rakk boobu moom raw la dëggantaan dëggantaan waaye saa boo ñëwee ba siggi daal a a njëkk a yaroo moo tax fexee bañ a sàggan nag ba fekkee lépp moom moo gën. Hmm. waaw boo fekkee lépp moom daanaka yiw yi ci la ëpp te it mat naa bàyyi xel waaye topp sañse beeg wàccaay beeg nangam nangam ba imaam raw la loolu day wax dëgg yàlla day wàññi ab yoon moom ndax julli lu solo te sopp nañ yoon wi nga jaar ngir ñëw booy dellu ko hmm. jaar yeneen yoon hmm. waaw loolu insha allah salam boo jaaree nii ci ñëw gi booy dellu jaar weneen yoon hmm, macha allah waaw loolu yëpp la ndax yére yi yees parce que dañoo xeeboon jullit ñi waaw jàppee ni diine mhm. dara te lu tàmbali la rek day xëy jeex waa mhm. nga xëy gis nag jullit yu set wecc sañ sa ba jekk mhm. daye ci jullikaay ba seen imam jiite leen waaw bu ñeppee jaaraat weneen xam ne yow ñii nga xamoon waaye gisaat nga ñeneen ñoo xam ne ñoo bokk pas-pas bokk yéene te koo ci gis ngi set wecc waaw di nga ne seen diine jii kat dara ngi ci ndax euh, sagam ñi nga xam ne ñoom la yàlla natoo safaan ñooy wane seenu safaan nga ci wax dëgg yàlla ci ci ci ci njémbeer li waaw loolu dafay aaji ñi nga xam ne it ñoom la yàlla dimbali ba ba ñuy xemmeem baax ñoom it ñu wane seen hmm. baax seen defar dimbalee ko ñi nga xam ne safaan moo leen gën a yitteel dëgg euh, xam ne nekk ci diina xañewul sol lu baax hmm. nekk ci diina xañewul lekk lu baax xañewul hmm. bëgg lu baax te rawatina nekk ci diina la gën a war dégg suñu borom nee na mu am tey tey ba ci biir tabaski bi ndax yaa ngi wax lu am solo bu ñu jullee ba noppi tey maam loo xam ne ñu ngi koy faral di gis mu jëm nag ci ci yenn xale yi war a ci yenn ndaw ñi xam naa léegi la ñëw sama xel mu doon yenn ñaani ndéwnal yi nga xam ñu koy def loolu it man bëggoon naa ci am ay ay ndax tey dafa bokk ci diine war a ci ci war a mbàccit moo ko ci <laughs> waaw loolu loolu moom ah, mbàccit naa ne mbàccitu xale yi la sax xanaa ñoom ñoo ko baaxoo def <laughs> uh-huh. waaw loolu moom xam nga xale moom Uh-huh. buñ ne ko lii it la rek maanaam bër la. Uh-huh. faaw faaw mu jël ci wàllam. waaw <laughs> ah, wallaay lu wér. suñ ko defee Maysa bu yoree turandoo moo xam ne wax dëgg yàlla moom yàlla manloon na ko gan ma naa ko Maysa yow moom ñooy ànd ñooy ànd ñaani néew na. <laughs> su ko defee dem seetu turandoo. waaw xeetu uh-huh. ñaan la rek ñaan goo xam ne dañuy ñaan ñaan goo xam ne daanaka ci liy neexal sax mën naa ne tabaski gi ci bokk. ndax ndaw yu bëree bëri sawoon nañ ci loolu. te itam dëppoo hmm. na ak diine diine moom. lu la fekk hmm. nga di ko def day xool ba xam euh, hmm. cëslaay gi te mooy pas-pas bi ba xam seetlu naam seetlul hmm. waaw xale nag sañ naa sañ naa ñaani kilifa dëgg la ko caaxaanee malheureusement loolu mooy faral di am léeg-léeg gis xale yoo xam ne moom léeg-léeg buñ euh, ndéwén na di jée ba ama suut moom mën nañ koo fooye dëgg la te loolu nag amu ci woon solo da ko waroon a dimbali rek yoo xam ne xëy na say bëgg-bëgg la <laughs> xam naa dañuy dañuy dugg tuuti sax ci ci beneen fànn yi nga xam ne bëggoon naa lool lool lool ñu waxtaan yaatal ci. Mm-hmm. Eh, eh, xëy na ñi nga xam ne xamuñ ko woon li ko waral day day day day nekk maanaam xëy na dañu déggul bu baax baax a baax làkku araab wala duñu mën a dawal yenn kii yi nga xam ne xëy na dañ ko jàngale. te itam loolu dañuy indi rek ci njëriñal maanaam tey jàngee diine bi. jàng diine bi jëfandikoo tey suñu làkk yi nga xam ne mooy làkk wolof wala làkk pulaar wala yeneen làkk yi xam ne mu ngi fi ñu war ko mën a ngir ñu jàng diine bi tey bëgg naa ñu foofu waaye balaa ñu cee jëm su fekkee nit am nga xëy na loo xam ne bëggoon nga ñu ko wax ci tabaski bi wala loo xam ne xëy na laa jumale ko nga bëggoon ko ko badd ñi nga xam ne xëy na ñu ngi topp jotaay wi rek boo ñu ko mënee mënee mënee wax balaa ñoo dugg ci fànn woowu waaw loolu moom mooy xanaa liñ ci laal rek mooy xutba bi nga xam ne imaam moom lay faral di xutba hmm. loolu moom képp ku julli ji nga ko war a xaar hmm. ndax boo delloo kër ga la ngay daal def mooy jublu ci rendi gi te ku njëkk a rendi sa imaam daanaka amoo tabaski mhm. waaw waaw amoo ko de moo tax bàyyi ba imaam xutba ba noppi ba mu leer ne imaam rendi na suba ngay soog a rendi loolu moom mooy li war a am waaw mooy li war a am te it kuy rendi mhm. faaw nga wax bismillahi allahu akbar mhm. waaw sopp nañ sax nga teg ci rabbana taqabbal minna maanaam li ngay def yàlla la ko yàlla nangul dëggantaan dëggantaan dañ koy def ngir yàlla ndax teraanga ju rëy a rëy la xam nga ren bi balaa nga doon xam ne doomu aadama yàlla da koo teral nga def ko doomu aadama dëgg la waaw coow moom dana la topp hmm, waaye hmm. ñaata xar ñooy daanu bis te doomu aadama yi ñoo leen di daane te dara leen ci fekk wallaahi lu wér waaw loolu dafay tegtale ne seen borom teral na leen hmm. teral na leen la ndax ñooy ren noonu bàyyi jàmbur te xëy na doomam sax yaa ngi ko bàyyi ci gétt gi dëgg la doomu aadama karawu xar boo ko laajoon mënu la ko jox karawu xar karaw rek mënu koo defar sakaa xar ndax yéen a borom hmm. ñoo bokk ñu xar yi ñoo bokk benn borom xar mi ngay rendi mënoon naa doon yow hmm. moom mi ngay rendi mu doon yow waaye coobare hmm. suñu borom moo la def nit coobare suñu borom moo ko def xar moom nga war koo rendi yàlla mi la defal teraanga ji boo rendee xar ba noppi war nga koo xalaat war nga koo bàyyi xel ci teraanga ji mu la defal. dëgg la. Hmm. waaw nag la koy santee la nga koy gërëme mooy fexe ba ragal yàlla gi mu gërëm ci yow di dooleeku. Hmm. bëgg yàlla gi war ndax dafa am yoo xam ne mooy yokk sa cofeel ci sa borom yooyu di ko xalaat dafa am solo lool. sëriñ baa ngi ci ci Masaalikul Jinaan nit ñi dañuy xëy uti luñ lekk uti luñ naan uti fuñ fanaan rek. buñ hmm. xasee ba am luñ lekk lekk buñ amee luñ naan naan buñ amee fuñ fanaan tëdd daal di xëy yeewaat te diggante bi ngay yeewaat di wutiwaat am na ñaata nit ci faatu. dëgg la. yàlla mi leen rey moo la bàyyee sa dund gi. waaye yooyu boo koy xalaat nag di ko teewlu dafay yokk sa cofeel ci sa borom. Hmm, hmm. yokk sa mbëggeel ci sa borom ndax nit moom koo dégg mu ne bëgg na ko rek da koo yoral njariñ ba pare mën koo jañal lor rek. wala nga ne bëgg naa ko daa am njariñ lu yor loo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo wala moom lor boo xam daa demoon ci mu fànqaloo lii nag ku gën a def suñu borom amul. Hmm, sëñ bi sax bind na béy du siiw njëriñ ak lor bàyyi ko wul ci kenn ku dul suñu kon kay ñuy bëgg bëgg yàllaa ci gën a yey. te boo bëggee yàlla rek jëfee ay ndigalam jàppandal ci yow bàyyi ay jàppandal ci yow te nag bisu bis la boo xam daf ñuy ñaaxaat ci gën a bëgg suñu borom subhaanahu wa taala. moo tax loolu moom nañ ko cee jàmbaas rek. allah maanaam daal kuy bëgg bëggeel yàlla ku wéetit maanaam nga wétali yàlla. waaw waaw ku mat bëgg la wax dëgg yàlla parce que lim ñu lebal moom ci jàng jàng sa diine bi jëfandikoo sa làkk maanaam tey boobu loolu ban njëriñ la la lay am ci doomu aadama ndax mën nga ñëw ñëw dikkaatal tuuti ci loolu balaa ñoo jëm tey ci yenn ti am na jël nga ko waaw loolu moom dinaa sawar lool ci jëm ko tontu sëñ Messi hmm. waaw amul lenn doomu aadama jàng hmm. te duwut ne bu ko jàngee ci làkk yu nàmp moo gën a jàpp hmm. loolu diine day ñëw bokk ci sa mbatit mm. dañoo bokk ci sa mboor mm. dañoo bokk ci sa jaar-jaar mm. ak sa lépp lu mën a doon làkk wuñ la ko mën a jàngale làkk bi danaam bu ci jaaree ci lay gën a jàppandal ci lay gën a gaaw ci lay gën a mokk dëgg la moo tax ci làkkam nga ko ci du yomb te neex naa gis lool ay jumtukaay yu yees yi génn ci àddina yëpp néew na nga gis mu bàyyi ko ci réew yi nga xam ne làkk wudul seen làkku cosaan seen làkku mbatit sa lañuy ñuy kon ki lay jàngal kay daa am fu mu lay yemale. Mhm, waaye bu doon nag yow yaay gëstu xam-xam. ba am mhm. xam-xam yekk ko ci saw làkk. wëlbati ko mhm. gëstuwaat wéyal gëstu gi. di ko yekk ci saw làkk. dëgg mën nga àgg foo xam ne kéemtaan la. waaye bu dee daa am koy déglu te moom boppam moo ko gën a ñor. moom ngay xaar mu xam-xamal la. moom ngay xaar mu am fu mu yegg ñëw xibaar la ko. te defu la ni boppam. defu la bu defoon ni boppam sax mu waaye defu la ni boppam boppam la gën a bëgg mhm. waaw loolu nag ñun ñoo ci war a yeewu xam ne làkk yi yàlla jox lu noonu la ko joxee ñeneen ñeneen bu sukkandikoo ci seeni làkk ba di ci yekk xeeti xam-xam yu bare bare bari muy jariñ seen aw askan di jariñ seeni xeet loolu ñun mhm. tam daf ñoo war ci wàll yëpp nag mhm. du tee nag ubbeeku mënta ñàkk ndax jamono dafa toll foo xam ne am na làkk yoo xam ne moom xam ko Mhm. am na solo ndax bu dajee ci yenn jotaay yu mag a magi léeg-léeg moom la ñuy faral di jëfandikoo te lu jamono gën di dem sax loolu di xaw a daanaka mhm. jamono di ko weesu di ko weesu dëgg la waaw mhm. fi mu ne am na koo xam ne bu ko yàlla nattoo woon mu nekk njiital càmm gi ci eh, Sénégal gii bu ko neexee ne wolof rek wax wallaay te mën naa bañ a jeexital ci benn ndaje moo xam ne dina ko seq ak ay moromi njiiti càmmam waaw mën mën naa nekk njiiti càmm yi fu mu mën di daje bu la neexee nga ne wolof képp laay jëfandikoo su ko defee loo wax ñu koy tekkee nga ga ca saasa say morom di xam lan la loolu boo demee ci réew yu bari noonu lañuy dajee buñ dajee ci fa nga xam ne réew yi fa la ñuy dajee kii daan sama làkk laay wax waaye du tee li muy wax ñu ngi la koy tekkil nga xam li mu wax lan la yow boo ñëwee wax saw làkk ñu tekki ca saasa lay demee lay lay lay daal di sotti hmm. waaw kon baax na loolu suñu réew ñu xalaat ci lu jëm lu jëmale kanam réew mi te tàmbali ko ca ca loola waaye bu loolu amul dañ ñuy mm-hmm. jàngal aw làkk soog ñuy jàngal xam-xam su ko defee nag am xam-xam day daal di yéex. Mm-hmm. te yow it même te boo déggul làkk woowu noonu tey da ngay ay jafe ngir mën a jot ci xam-xam boobu nga xam ne moom moo ci moo ci nekk. doo ci jot mm-hmm. te xoolal jaar-jaar yi nga xam ne boo demee ci jàng yi ci la ñuy jaar. jël benn gi lépp jàng aw làkk la. dëgg la. jël benn rawatina làkk boo xam ne dafa naqaree xam ni français. nga xam ne bëri na ci biir askanu français sax ñoo xam ne ñoom dese nañoo dégg français boo leen ko binduloo xam ne xamuñ ca lu bari. dëgg la dëgg la mën nañ koo wax nii rek ndax mooy seen làkku judd mhm. waaye boo ko binduloo woon ndax làkk wu runge la mhm. te nag xale yu baree baree bari buñ demee ci jàngu bi mhm. ñu dalal leen làkk woo xam ne mosuñ koo dégg ci seen i ndey mosuñ koo dégg ci seen baay ñooy leen ci leen leen di jox xam-xam bu mu fekkee cag naa ci diggante boobu kon man fekk am ko lu wér na nag làkk yu ma indaale nga xam ne moom laa xam Hmm. moom laay wax sama ndey moom laay wax ak sama baay bu fekkoon xam-xam ba mu bëgg a jàngal yegg nga ko ci làkk boobu moo xam pulaar la moo xam séeréer moo xam wolof la hmm. ah su boobaa day daal di jàppandal lool hmm. waaw moo tax bëri ko ñu xamul fekk ne yow mi ko war a xamal yaa xamul yoon wi nga ko war a jaarale ngir mu xam ngir mu xam dëgg la dëgg la waaw moom la tubaab di wax pédagogie mooy xarañteefu xamle dafa am solo loolu nag lu mel ni réew Sénégal xalaat ca loolu dafa am solo lool xeeti xam-xam mm. yëpp mën nañ ko yekk ci làkk wolof moo xam mboor la mm-hmm. moo xam xeeti xam-xamu jaww ji la moo xam xeeti xam-xamu ndefar la xeetu xam-xam yu mën a doon mën nañ ko yekk ci làkk wolof ndax ñi nga xam mm-hmm. ne bu fekkee daamar am na jafe-jafe ñoo koy defaraat mm-hmm. fañ ko jàngee lan lañ leen fa làkk wolof la di bañ xàmmee lépp boo demee ci ñaw léegi tey tey tey ñu ci mel ne yow nga xam ne yéen a ngi yëngu ci wàllu mool ay téere ak yooyu noonu mm-hmm. ndax tey ndax gis nañ la ku ci mel ne yow ngay jël ay téere yoo xam ne eh, ci xam-xamu diine la koy jël di ko sotti ci wolof muy liggéey am solo waaye ndax am na ndax ñeneen ñi ñu ngi def ñu ngi def li nu mel ndax lu ci mel ne wax wolof ak xam ne ñoom ñu ngi def loolu ndax fan yële maa ngi doon gis bu ci mel ne alxuraan ñu bindaat ko ci wolof muy téere bu gànjor lool lool lool waaye tey ndax ku ci mel ne xam ne yaa ngi yëngu ci loolu ndax tey nit ñi ñu ngi ci ñu ngi ciy sóob bu baax ngir mën ñoo firil téere bi ndax bëri ñoo bëri na ñoo xam ne bëgg nañoo xam waaye xëy na li déggul làkk arab mooy doon li nga xam ne moo leen di ci tey duñu duñu mën a jëm maanaam ci xam-xam boobu noonu nga xam ne soxla nañ ko ndax nit ñi ñu ngi ci ñu loolu moom bu dee ñun nga xam ne yàlla dogal na am nañ ci yéene lool te itam jàpp naa ne képp ku yàlla dimbali hmm. ba boo tiimee duñ bind ci arab nga mën cee xam dara war nga cee dimbali askan ndax mën naa ne xam-xam yi diine téere yi ñu ko yekk yu ci baree baree bare bari ci làkku arab la te mm-hmm. boo seetloo askan wi li ëpp ci ñoom jekkuñ làkk woowu mm-hmm. moo tax xam-xam ya fa daal di sori man naa faral di wax lu bari ne xam-xam ak làkk làkk dafa mel ni ndab mm-hmm. su ko defee ndab li liñ ci yekk boo gisul ndab li liñ ci yekk moom noo koy def euh, balaa ngaa mën a jëfandikoo liñ yekk ci ndab li kay da gis ndab li ba pare gis ndab li ba noppi dëgg la. waaw kay boo gisee ndab li ba noppi nag su boobaa nag mën ngaa ubbi daal di jëfandikoo lañ ca yekk. léegi nag mbooleem xeeti xam-xam yi ñu yàq ci làkku arab. Mhm. mën naa ne làkk bi mooy ndab li. xam-xam mhm. biñ ci yekk nag ma nga ca biir mu ëmb ko bu fekkee nag ndab li gisoo ko la mu ci biir doo ko gis. dëgg su ko defee nag man mi nga xam ne xëy na gis naa ndab li lañ ci yekkit gis naa ko jëfandikoo naa ko. waaw war naa fexe nag ndab li képp lay tuxal. Mhm. ndab li laay fexe mu jege ki dégg wolof ndab li laay fexe mu jege ki dégg pulaar ndab li laay fexe hmm. mu jege ki hmm. su ma nee tasawudu sixaar muy téere boo xam ne suñu tubaab moo ko bind mu am solo lool di ci dénk ndaw mi hmm. mu bind ko ci làkku arab ki ki déggul arab bu ko jàngee du ca xam dara wallaay léegi nag boo ko yekkee ci làkk wolof nga xam ne ki dégg wolof jàng na ko ci wolof yow nga dégg arab jàng ko ci arab maanaa bi ci biir maanaam li mu ëmb ci biiram yéen a ko bokk xam Mhm. yow da nga ko jaare ci arab rek man ma jaare ko ci wolof rek mhm. léegi nag gàllankoor bi fi nekkaat mooy ki xam lu arab ba xam ko daanaka léeg-léeg nag ak yaras mën na koo dikkal ni muy dikkalee ki jàng français ba xam ko yaras mën na koo dikkal ba day jàpp ne moom li fekk jëfandikoowul euh, làkk wa ci na mhm. ña nga xam ne mooy seen làkkub juddu moom lañ nàmp ni ñu koy jëfandikoowee waaw day xaw a daal loo xam ne mën na koo tiitaroo waaw fekk ne ndab mat a li mat a tiitaroo koy mooy li ci ndab monsieur Ndafli dëggantaan ah, dëggantaan marché. Ah, loolu am solo léegi nag yekk gi moom wax dëgg yàlla mi ngi am ndànk-ndànk ndax euh, fi mu njëkk tàmbalee sax mooy ci wàllu ay waxtaan gis ñoo xam ne waxtaan yu bare bare dañ koy def jéem a tekki risaala jéem a tekki mhm. téere nangam jéem a tekki téere nangam ba ci alxuraanu karim ku mel ni sëñ Moustapha Gueye ku mel mhm. yu bare bare mhm. koy tekki su ko defee muy jege ñi nga xam ne làkk boobu lañu lañu la ñu dégg waaw loolu sëñ Abdourahmane Mbacke Daaru Muxti li mu tekki ci ay téere sëriñ bi macha allah Mhm. mel ni sëñ xaadim bay téere yu bëree bëri fekk ku mel ni sëñ alaaji mbàkke xaadim mu xaddim kooku kéemtaan mhm. la liggéey bu réerée lay liggéey ci làkk wolof ci téere yoo xam ne lan mhm. euh, arab la mu koy toxal ci làkk wolof xam ne fi boo ko jàngee ci wolof ak ki ko jàngoon ci arab li ngeen xam yéen a ko bokk te ki xam ak ki xamul duñ yem mukk loolu yàlla suñu borom moo ko teel wax ci alxuraanu karim duñ su ko defee nag borom yi xam yi nga xam ne jekku nañ làkku arab lan mhm. fa yàq ñu xam ko luñ dimbali askan wi ci yàkkal leen xam-xam yooyu de ci mhm. dëgg yàlla bëri mhm. waaw te it jublu jublu leen waaw na leen lool lool lool ma am téere buñ ci defoon mu tudd jàngal sa diine ci wolof waaye téere la boo xam ne daanaka nit ñi niñ ko yittewooyee kéemtaan la ndax mën nga ñu dikkal ci téere boobu jàngal sa diine ci wolof ndax it am na am na solo lool te gis nañ ne eh, bëri na ci ay fànn yoo xam ne yaa ngi ko ci waxtaanee jëm ci jëm ci tasawuf jëm ci tawxiid jëmit maanaam ci yenn tarixa lan mooy tarixa ndax tey mën nga ñu dégg ci téere bi nga tënkal ñu ko rek su ko defee li ñuy xam bu baax a baax a baax lan moo ci lan moo ci nekk waaw téere la boo xam ne daanaka li nga ñu njëkk a laaj sànq moo taxoon ñu jéem koo jéem koo jéem koo mool mm-hmm. waaw njëkk mool gi ñu jéem koo liggéey xalaat mm-hmm. ne nit ki moom lépp lu muy jàng bu ko jaaree ci aw làkkam ci lay gën a jàppandal te gis nañ askan wi ëpp ci ñoom bëgg nañ diine ji lool mm-hmm. waaye nag ko ci xam ñu néew la boo doon laajte nit ñi la mooy seen farata la mooy seen sunna lan lañ sopp lan moo araam nangam ak nangam mën nañ ci am jafe ndax fañ ko leeralee dañ faa àgg hmm. waaw ñu bëree bari boole new yim saa salaam lan la fi wax te moo ne xoolal xeeti xadis yi waaw wax hmm. yonent bi saa salaam ni mu tasaaroo ni mu bëree ci Buxaari hmm. ci muslim ci Muwatta ci waroom yi xam-xam yoo xam ne liñ ci indi bëri na lool waaye gannaaw ci làkku araab la bëri na koo xam ne judit la fii ci réew mi te boo ko ci laajoon lu ci xam dina ci limal lu mat fukk wala ñaar fukk. waaw tax moo ne saa bu kéemtaan la. su boobaa nag jéem ko jéem koo tekki ci làkk wolof ba mu jege leen day am solo moo tax téere la boo xam daanaka li ko dalee ci bi jullit bi gane jamono. ba ba mu hmm. génn àddina ñu ko denc lépp lu mu fa yittewoo. ci wàllu hmm. ku gane jamono luñ koy defal. waaw lu jëm ci xaraf lu jëm ci julli lu jëm ci koor lu jëm ci asaka ak màkka lu jëm ci teggini jàng alxuraan teggini lekk naan jënd ak jaay waaw takk say hmm. fase sax waaw nan la ñuy fase ak yëpp ma nga biir waaw te yooyu daanaka hmm. ci bare bari nit ñi moom dañ koy dégg nii rek mais ni ko diine jàngalee waaw hmm. te ñëw ci téere yi nga xam ne dañuy seen delluwaay lépp ci yontu saa salaam la ndax yontu ay salaam diine moom saa ngi weer kon xam njàngaleem dafay doon farata ci bépp jullit dëgg la dëgg la boobu loolu lañ ci tënkoon rek nga xam ne njëlbeen gi ba ci jeexital gi lépp lañ ci biir jullee néew yëpp ni ñu koy denc ak nga xam ne buñ demee ci tarixa ki ñu war a topp suñ <clears throat> tubaab jàngale ko Seydi Hadji Malick leer ci lu bari yooyu a nga ci hmm. biir waaw téere la xam ne moom wax dëgg yàlla moom lañ njëkk a bind sax ci téere yi nga xam ne bind nañ hmm. ci làkk wolof génne woon ci lu mat junni. am solo te yaa ngi koy wax ne nit ñi yitte woon nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax ba mhm. man sax yaa ngi may jox euh, euh, kii bi euh, lëkkalekaay gi ma dugg doon ko xool muy lu muy lu am solo lool lool allah. Mhm. léegi mhm. woo nan la nan la mën a def ba ba mun koo jot. waaw fi mu ne moom daanaka jeexoon na tàkk moom wax dëgg yàlla moo taxoon lëkkalekaay googu sax. maa mhm. tàbbal ko ci lënd bi nga xam ne foo ay nekk ci àddina da koy mën a mhm. am ci ci ci jollo soom yu mel noonu lu ci bëgg a jàng-jàng mhm. waaye téere liñ ci mural lépp a jeex waaw te daanaka na ci lu tollu junni waaw naa gi nag ci lañ def lëkkalekaay googu nga xam ne foo nekk rek da koy mën a badd ci sa jollosu mën koo jàngal sa bopp te gis naa la ko jot a yër ci ay nit mat na fukki junni ak lu topp Hmm. loolu li muy takkal rek mooy seen diine ñor na leen te boo leen joxee loo xam ne hmm. mën nañ ko cee jàngee ci làkk wi xam hmm. jëfandikoo moo tax fi ne ñi ngi am yéene sax muulaat ko yàgg toppaat nañ ko ba topp gi yëpp yegg na xam naa ne balaa yàgg incha allah danañ ko muulaat su ko mbokk yi mën mëntu jëriñoo bu baax a baax a baax dëggantaan dëggantaan te te te ba ci téere bu bi nga ko bindee ba noppi jëlaat nga yeneen i téere Euh, bu jëlaat nga yeneen am bindaat nga ñaari téere benn bi mu doon loo xam ne da nga ko da ci wolof lu ci mel ne Masaalikul Jinaan amit lu ci mel ne Cheikh Amadou Bamba jaar-jaar ak jàngale mu yu am solo ndax mën nga ñu dikk ci ñaari yooyu tënkal ñu li nga xam ne moo ci ne ak ku ci nekk aussi ku ci nekk itam boo ko bëggee naka ngay def ba mun ci am waaw bi bi liggéeyaat mooy Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul jaar jaar jàngale hmm. loolu moom bëggoon cee laabirante ak mbokku jullit yi ak mbokku taalibe rawatina moo tax ndax ku mel alaaj Alaaji Mbàkke ma tudd sànq daa bëri téere yu am am solo yu mu yu liggéey yoo xam ne tomb yi sëñ mag ñi daanaka ci la ci indi yu bëree bëri ci waxtaani sëriñ Tuubaa yi garab bu Tuubaa mel ni jataayu taxe lu mel ni jaafatu sama die nga xam ne daanaka tomb yi ya fa nekk moom war naa jege ñaari junneeg lu topp su ko defee nag la mu ca jàng dañ cee sepp lu mat juróomi téeméer yoo xam ne ay tomb lay doon ñu indi ko ci téere boobu Hmm. waaw mooy jàngale yi hmm. xool nag ci yenn téere xam-xam yi lu mel ni masaalik lu mel ni xoqa hmm. lu mel ni nëhju lu mel ni munawir mu layin lu mel ni maanaam xudóos tazawudu subaan tazawudu zixaar yooy yëpp ñu seet ci ay bayit bayit yoo xam ne dañuy indi arab bi daal di indi li ñuy tekk ci wolof ci suuf wolof dëgg su ko defee loolu moo nekkoon jàngale yi moo tax ma ne jaar-jaar ak jàngale jaar-jaar yi mooy téere irwaa am na dim bu sëñ Mar Lamin Jóob nga mhm. xam ne sama mbokk saa wolof di sama jëwriñ lool waaw di sëñ Abdou Khadir Kébé moo ko njëkkoon a tekki sax tekki boobu jaar yoon mhm. daanaka ci tekkeem boobu ci lañ sukkandiku mhm, waaw mën a indi irwaa na din ci làkk wolof tënk ko nag tënk boo xam ne daanaka xët yi du ko tax a bari te boo ko jàngee da ngay mën a xam ne kat sëñ bi jaar jaaram ci gannaaw bu mu gënee jamono ci Mbàkke Bawol ba keroog bi muy ñibbi Touba jaar jaar yi lii la ba muy woote yoon bu dag yooyu yëpp jaar jaar yi nga ci biir moo mhm. tax téere la boo xam ne moom ku ko yër waaw boo siggee sa murit moom am nañ yaakaar ne war naa mun mhm. gën a rafet ndax danga xam ne suñ tuwaa nee na nangam suñ tuwaa nee na nangam suñ tuwaa ci nangam ah, mhm. <laughs> da nga xam ne sëñ bi lii la gërëm lii la gërëmutoon noo doxee rek yow la bu dee sëñ Tuubaa goo xam ne daanaka àndut ak bëgg gaa li may faral di wax naan bëgg sëriñ bi moom yem ci kepp kepp wóorul waaw ndax nit ñi mën nañoo sukkandiku ci sa bëgg sëñ tubaa gi wax dëgg yàlla hmm. def loola ci loo xam ne da yaakaar ne sëñ bi gërëm na ko waaye gërëm ko hmm. waaw bi da ngay gëstu sëñ hmm. boo gëstoo nag da daal di dégg sëñ bi waaw li benn borom xam-xam daf ni ma bëgg sëñ bi baax na lool waaye dégg sëriñ bi moo ko gën boo bëggee sëñ bi képp képp képp mën ngaa doxee nu sëñ bi gërëmul te doo ko xam sax waaye sëñ tubaa ku ko dégg bëggu Mm-hmm. dégg gi mooy gëstu ko càmbar ko xool jaar-jaaram xool jàngaleem da ngay bëgg sëriñ bi ci saa saasa ndax lu tax nga war koo bañ newut ci moom. dëgg ñu ne sëñ bi kenn du ko bañ dañ koy umpale. waaye ku ko mm-hmm. gëstu bëgg ko. Mm-hmm. mbooleem lu ñuy nawee nit. boo ko natt ci sëriñ bi da koo feesee dell. njub gi foo ko natt weesu na ko. mbaax gi foo ko natt weesu na ko. dëgg gi foo ko natt weesu na ko. ci saa. waaw boo ko ëmbalee cofeene daal di koy roy. Mm-hmm. boo ko royee ci dëggu boo ko royee ci mbaax boo ko royee ci bëgg sa kilifa boo ko royee ci bëgg alxuraan bëgg yonent bi bëgg nangam ak nangam kooku texe àddina ak àllaaxira lay jural. Mm-hmm. dëgg waaw moo tax loolu daanaka lañ jéem a tënk ci téere boobu ngir seetlu ne bëri nañu bëgg sëñ Tuubaa lool waaye xëy na nag bu topp sëriñ bi jotee nag. mën nañoo mm-hmm. jaar feneen foo xam ne xëy na sëriñ bi gërëmu ko. inshallah lool loolu baye yalla di lañ jël ndax xamna ni li lii war nañ ko gëna mëna xotal gën ko yaatal ndax xamna ni ne fi yalla baye di lañ jël sax jotay yo xamne rek li ñëw waxtaan nga xamne ci mbooru li ñëw ak jangale yi nga xamne mu ko doon ko doon jang ndax lepp rek day ñëwaat ci biir mbor ak xayte nga xamne sama ñi melni man nga xamne xamuñ ci lu di lañ ci mëna xam bu baaxa baaxa baax lan mëna ci biir ak jangale yi ngir rek di ko mën di jëriñoo jëriñoo sa su nekk legi ndax doo ñu dikkalaat tuuti ci masalikul kul jinan ni mu ko ni ko tekkee ci ci wolof ak njëriñ li nga xam ne moom moo ci moom moo ci moo ci nekk balaa ñëw tamit. waaw téere boobu de téere la boo xam ne. Hmm. sëñ bi bi mu ko bindee ba mu àggal ci bayit yi mujj. dafa hmm. sant boromam. Eh. waaw sëñ Thiaw dafa wax ne sant naa yàlla mi nga xam ne. Hmm. dimbali na ko ba téere bi àgg. te muy téere boo xam ne daf koo soxaloon. min bëri di ma xat saxalaa muy téere boo xam ne lu ma soxaloon la xam nga téere boobu kon mat naa bàyyi xel. te it tasawuf gi nga xam ne moom lañ ko toppee moom la ci leeral te it li gënoon a tax ñu bind ko mooy dafa am jamono jum duppooloon mooy bi ñuy ubbi jumaay Masaalikul Jinaan gii ci Ndakaaru mhm. am mhm. mbind buñ ci defoon sax mbind moo xam ne daanaka euh, mën naa ne looy Masaalikul Jinaan lañ jëfandikoo tëgg ci way mhm. ci mbind waaw mi ngo waaw daanaka liñ ko daanelee mooy lépp mat naa fàtte ba mu des yëri turandoom ba waaw hmm. sant taalibe yi murid di wax dëgg yàlla jaayante bi jaayante ba jumaa ji àgg mu doon lu hmm. am am solo waaw tàmbalee bi sëñ Sidi Muxtaar ba ba ci ni ko sëñ Muntaxa ubbi hmm. nekk lu sedd xol wax dëgg yàlla ci positif waaw ci ànd booloo nekk benn jaayante suñuy ñaq suñuy dërëm ku nee la nga am nga def ko ci ba jumaa ji àgg may nag jumaa ji daa am turandoor turandoo bi téere la boo xam ne sëñ Tuubaa moo ko bind kon nag nañ sant bu baax ci jumaa ji ak gum àgg waaye nag buñ fàttee yëri turandoo ba mm-hmm. waaw turandoo moom am na solo lool lool nag ci lañ xalaat ne nag am na ñoo xam ne làkku arab mën naa dis ci ñoom ñu am jafe-jafe ngir xam lan la sëñ bi yekk ci Masaalikul Jinaan su ko defee mm-hmm. ci biir téere bi dañuy indi arab bi ci wet gi su ko defee ci xët gi nga xam ne moo ànd ak arab arab bi ñu def mm-hmm. ci wolof wolof yi nga xam ne li nga jàngi fii ci arab moo tolloog lii ci wolof jolof dëgg la macha allah xam boo ko dawalee ba mu jeex da ngay mën a xam ne kat boo demee ci Masaalikul Jinaan nangam dafa sëriñ bi jàngale rawatina ci jamono ji nga xam ne xol moom ni mu yàqoo kéemtaan la te sëñ bi nee na def naa ci téere bi loo xam ne képp ko saxoon ràgg boo ko jàngee mu defar wax ci ne lépp lu nekk ci biir nang ci rafet mhm. waaw lépp lu nekk ci biir rek lu wér la mhm. te na nga ci rafet nekk ma nekk di ko ñuul bu mu tax nga dëgg la loolu yëpp maanaam ci yaras goo xam ne daraa am ci diggante der bu weex ak der bu ñuul jàpp a xam-xam moom téere boo xool borom bind ko muy ku ñuul rek wartu mën a ne sëñ bi ne déedéet ñuul taxul dégg-dégg ah. taxul nga def eh. hmm. tax ah, yu bëree bëri yu ñuy wax nag tey buñ ñee xeexal der bu ñuul ak xeexal aw làkk fonk sa bopp yu mel noonu sëñ bi ni ci nekkee koo xam ne hmm. eh, wax dëgg yàlla ku ci mat a roy la ku ci mat jàngee la ci yu bëree bëri kéemtaan la waaw hmm. ah, ba ci fonk làkk wolof loolu sëriñ bi moom dëgg yàlla saa wax waaw bu mag mag sax waaw bu mag mag bi muy nekk bi muy nekk Gabon bi muy nekk Gabon sëñ Modou Lamine Diop Dagana ngi koy nettali ci Irwaaw Nadim daa am ku ko digoon bi misk waaw nga xam ne gëtt la gëtt bu neex dig ko keneen nag waaye sëñ bi moom yaakaaram da ko wéer ci poudre borom nga xam ne aju ci woon yaakaaram ci dara far far waajee sax indiwu ko nag <laughs> ñàkk gi mu ko ñàkk indi ginnaaw sëñ bi moom digg wékku ci woon yaakaaram moom amul ah. benn jafe-jafe waaye nag keneen kam ko diggoon moom wékkoon na ci ah. yaakaaram ah. waaw bi ko sëñ ma Lamine di nettali nee na ñoom ba ñuy xuloo ci ñàkk gi mu ñàkk indi lam leen diggoon nee na dañ doon waaw dañoo jàppande ci ci làkk wolof lañ doon wax ca Gabon sëñ bi di ko dégg waaye nee nañ sëñ Tuubaa bi muy dégg ñuy wax ci làkk wolof donte xuloo la sax baat di jóg baat di jóg ci làkk wolof sëñ bi nee na xolam da cee sedd lool ndax booba dafa gën a dégg baatu wolof. est dafa mujj mel ni ku ñibbi sax. est-ce que dëgg la baatu wolof kon kooku saa wolof la woon ba ci sëñ Moussa Ka woy yim ko njëkka a woy ci arab la ko bindoon. Hmm. waaw bi ko sëñ bi gisee da moo ko soppiloo ne ko boo gisee may woy yonti bi saa salaam ci arab damaa bëgg ay bu ñu ko gisee. maa ma ci wax. waaye mhm. euh, man nag boo ma deetee woy woy ma ci wolof yi nga xam ne moom laa naan moom laa dee. ma doon ko sama mbokk doom. Mhm, waaw nga kon. macha allah wax yàlla. lool lool lool xam naa ne waxtaanu sëñ bi moom incha allah foofu daal yeneen jotaay boo xam ne. waaw dañuy dañ koy rek. def ko mhm. ko ko wax ci mbooram waxi ci yenn jàngale yi nga xam ne doon na ko def muy lu am solo. waaw waaw loolu nañ ci nekkin ci ci ci dundin ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dinañu dinañu mën a mën a jëriñ bu baax a baax a baax a baax léegi daal xam naa dañu lay dañu lay bàyyi rek bu ko defee nga daal di jàll benn bataaxal xëy na boo xam ne dénkaane lay doon bu ko defee daal di tàggatoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy teewlu jotaay bi. waaw wax dëgg yàlla sant bu baax mboolem ñu doon teewlu jotaay bi sant la yow itam. Hmm. ci wax dëgg yàlla taxawaay bi ndax gis nañ li ngay taxawoo làkk bi rawatina jataay jataay yi daanaka ñuy seetaan moom man bi ci ñëwee laa xam li ñuy gis rek mooy nataal yeeg gis sëñ mooy sa nekk ne sëñ jibi di wax waaye fekk na am na liggéey bu rëy rëy bu nekk ci suuf dëgg la dëgg sëñ xaar yi itam ak mboolem ñi nga àndal liggéey bi rek di nuyu bolem waa wax dëgg la wala fa xamle moom ba ci jàng wala fi yeeg saabal ak waaw taxawaay am na sa képp koo xam ne yu ñor na la di nga rafetlu seen liggéey la waaw te it naa ne dana gën a jëm kanam incha allah ndax da ngeen a tàmbali hmm. ñoo xam ne bés buñ yëgee li ngeen leen di defal buñ leen fekk seet dana gën a woyof ndax lii ñuy def ci làkk wi càmm gi la waroon hmm. hmm. waaw càmm gi daal mën naa ne lim dimbalee làkk wi mooy yoonal bu mu yoonal bindal bindin wi rek waaye gannaaw bu mu yoonalee bindin wi nag waral na koo sàmm ndax loo yoonal sàmm ko dafay am solo moo tax nit ñi wekk ko waaw waaye fi mu wax dëgg yàlla mbokk saa wolof yaa ngi ciy def liggéey yu ama am solo yoo xam ne bu ci kanamee tuuti képp koo xam ne. bindam mm-hmm. wolof ak dégg wolof ba mm-hmm. genn waar boo xefee mën ngaa am kersa. dëgg la fi ne mi ngi tasaaroo bu baax te loolu yëpp wax dëgg yàlla jàmbaar yaa ngi ci ginnaaw nekk ci whatsapp beeg nekk ci facebook bi nekk ci youtube bi fépp di liggéeyal làkk wi te loolu askan wi képp lay jër ëllëg. dëgg la dëgg la ñu ngi lay sant bu baax yàlla barkeel liggéey bu baax waaw ñu sant nañ baax kontaan nañ lool wax dëgg yàlla suñu xol sedd dégg nañ loolu incha allah jërëjëf di la si jaajëfal yow it bu baax a baax baax a ñaanal yokkute waaw ndax yow it ci lu lu am solo bokk ci mm-hmm. nga xam ne ñu ngi xemmem loo ay ndaw ñu bëri xam-xam jëmit maanaam tey ci làkk wolof ak yeneen ak yeneen di jaajëfal nga xam ñu ngi doon teewlu jotaay wi di ñaanal ñëpp jàmm ak xew-xew bi nga mu ngi suñu kanam di tabaski bi na yombalal xar yombalal it rek dinañ ko ci ci ci bés di la ñaanal jàmm yow ñaanal jàmm ñëpp jàmm sax ci réew sax ci xol yi ak ci xalaat yi ndax rek li ko wolof di waxee lu dul jàmm jàmm ko gën di lay daje ba beneen incha allah